A'udzubillahi samil alim minasyaitan rajim warahmatullahi taala wabarakatuh Mbok ñi bàyyi xel ci euh, site bu mag bi Xam Sam rew ñoo ngi am mbégte di leen nuyu ci nuyo bi ñu l'islam bolé. mu mëna wutu bép nuyo té ben nuyo mënu ko wutu. di ñaan suñu kaddu yi fekk leen ci jamm. Yalla defal ñu koor guñ nangu la ñu ko fi yaq yegut. ñu ci seen koor jataay bii di suñu fukkeelu jataay ak juróom-ñeent ñuy mottali rek euh, juróom yooyu nga xam ni suñ boroom subhaanahu wa daf koy jagleel doomu aadama waaye da koy ñàkkaat ci ak dundam wala ak faatuum juróom yooyu nag moom mooy leen waxoon ba ko juróomeel nag ci lañ war a ñëw te mooy bi ëpp solo te gën a yaatu xaamisu alxayaa xayaatu xablal mawti fasaarihoo lil xayri xablal fawti sëriñ tubaa nee na juróomeel bii nit lu mën a man ak nu mu ko mën a mane jaamu yàlla gum mën a man ak nu mu ko mën a mane def lu baax gum mën a man ak nu ko mën a mane moo xam joxe alal la liggéey la jaamu yàlla dimbali la gis bu faaru xasee ñëw c'est terminé loolu waxkat bi wax naan àdduna ku ne ab séquence nga ci suyé rek rôle bobu ci dee la yam dé mum bu agsee mbokk yi dara existé tout fo déggé diw dal diw dé nee mo fi bayiko xamal né loolu mum c'est terminé jeexna jeexna jeexna na lenen motax lu né diw da fébar ba mi ngi tané diw da ñak ah mi gol xayna man na amat diw dé euh, fan yi dafa occuper kon xëy na guddi ja mën na am yàlla mën ko defal ak fiix diw de fan yi moom kàttan da daa ko xamna da febar bu wéré mu ñaar yoy yep man na nek ngay ngay ngay eh, rêvé yalla doli joxal lako waye fatou ba xasse ñom moom c'est terminé kon yi yep do ko bokay man li ñaan boko man da ngay dund rek mo koy tax a man waye ko mo moom mënatul dara seigne touba neen nak ñeek ngay gor gor lu nak jëf lu bax kullu man alayha fan kullu sayin xaalik kullu nafsin zaa'iqatul mawt lépp lu lu taxaw bis dina ñëw dootu taxaw lépp lu lu tooy bis dana ñëw dootu tooy lépp luy dund bis dana ñëw nag dootu mu alku mu faatu kon nag njëkk yii mbokk faw nga nekk nit ku dëgër ku mën a góorgóorlu ku mën a dimbali sa bopp ci bi ngay dund mission bi nga bañ koo loolu suñ borom subhaanahu wa taala di wax ne wabtaxi fi ma ateeka allaahu daara al axirati wala tansa nasibaka min addunya waaye wa ahsin kama ahsana allah yow jaam bi góorgóorlul bu baax te xam ne àdduna defaruma ko rek ngir bëgg a defar di ko defar daam lu ma la fiy defloo waaw wàcc naa la fi mais daam lu ma la fi defloo fexeel ba loolu bu ko esek waaye moment yi fi nekk gëmal ne fii da koy fi jógee dem feneen fële itam dafa am ci ñu lay xaar te liñ lay xaar ci fële fii nga koy liggéey niñ koy ni ma koy faral di misaale léeg-léeg mooy xale bi judd ñu dugal ko école muy jàng am am CFA am BFEM am bac def formation bu mu mën a doon ba réussir ko daane ne daa bëgg liggéey entreprise bi jël na la wala ku la mën a jël dafa la yóbbu nga def stage mbokk stage boobu bu ñu ne woon stage rek nga def à vie doo ko ci defante. waaye stage bi dafa am lu ko tax a jóg adduna nag stage la danga koy réussir ëllëg nga mën a nekk fonctionnaire dëkk ci àjjana kenn mënta dem àjjana te jaaroo ci àdduna kenn mënta réussir ëllëg te jaaroo ci àdduna li ngay wut fële di ko di ko di ko reefe fii nga koy liggéey kon wala tan sa nasibaka wabtaghi fiimaa aataaka Allaahu daar-l-aaxirata wala tansa nasiibaka minad-dunya maa tax Sëñ Tuubaa ne la fexeel ba bi ngay dund daal nga góorgóorlu ci mbaax góorgóorlu ci jëf lu baax ba boo faatoo suñ boroom man laa dimbale nga war a bokk ci ñi nga xam ne suñ borom defa na leen fa ay tawféex kon mbokk yi njëkk ngay faatu góorgóorlu ci baax ndax boo faatu gut xam nga na faatu noo suñ ba jaxate waxoon defal na say maam fabat say maam ba amatoo maam daanal fab it kon axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu